dafa am chaque année dañuy organiser benn tournoi bu ñu tuddee coupe directeur euh, en fait euh, au départ football football moo nekkoon à la base sport mais en en réalité li ko euh, li ko tax a jóg mooy fexe ba nga xam ne suñu étudiants yi nga xam ne amuñu campus social te dañoo nekk si ay ENO yu bëri si biir réew mi tey ñu ngi si lu mat fukk ak juróom-ñaar localité ñu jógee Casamance ñu jógee Fouta ñi jógee euh, Kaolack Diourbel ba fu nekk donc au moins benn yoon si année bi ñu dajale leen benn endroit ren nag Diamniadio lañ leen dajale euh, pour que ñu am ay activités sportives maanaam football handball mais aussi scrabble euh, mais tamit ren dañ si yokk li ñuy wax jeu vidéo maanaam tàggat leen si développer ay jeu vidéo parce que seetlu ne Euh, jeux vidéo yi xale yi utiliser yi si bëri dañ ko importer te ñun am nañ filière boo xam ne day tagat xale yi si si si développement euh, d' application web mobile gaming donc maanaam xale yooyu bu ñu leen jàppalee mën nañoo développer ñoom seen bopp ay jeux yoo xam ne suñu xale yi dinañ ko mën a utiliser donc moo tax ren ñu yokk ko si euh, beneen activité mi si yokk aussi mooy comme suñu étudiants dañoo nekk si seen i ENO nekk seen terroir am ay problème yoo xam ne dañ koy vivre au quotidien wax leen ñu xool problème yooyu niñ si def def amee ay idée pour développer entrepreneuriat maanaam ay ay projet yoo xam ne dinañ ko mën a accompagner donc mu amoon benn benn hackathon maanaam concours bu ñu organisé euh, finalement Eno Ndioum ñoo ko ñoo ko remporté euh, leneen li ma si yokk aussi mooy le service à la communauté maanaam euh, comme xale yi tamit dañ leen a war a fexe ba ñu am esprit de civisme et de citoyenneté esprit de partage et de solidarité dañuy profiter aussi occasion pour des activités de don de sang activités de don dans les maisons euh, d'arrêt et de correction mais aussi dans des structures qui ont été dafa malades voilà donc euh, activités qui ont organiser et ça permet aux étudiants aussi en même temps euh, de développer un esprit de solidarité et de partage